ñoom ñoo nekk les premiers à piétiner cette justice ñoom ñoo nekk les premiers à piétiner les décisions donc am na fi loo xamante si nag yàlla du wàcc yónni malaaka yi yéen seen jëmmi bopp yéen ay taxaw fajal ko seen bopp puisque ñi leen waroon jàppale ils vous ont tey jii nii dëkk boo fa dem quartier boo fa dem banlieue boo fa dem am na boo yoo xam ne ñu leen tëj ci kaso bi di leen considérer comme des animaux alors que quartier yooyu am nañ ay champion de lutte yoo xamante si ni booy ñoo leen def champion ñu doon booy ñoo leen jàppale booy ñoo leen jël seen scooter di dàqante di dem ci mbappat yi di ànd ak ñoom ci arène bi fu la ñu dem fa di dee ñu oto yi di leen mbëkk ñuy jamante di xeex ba ñoom ñu nekk ay champion am ay milliards tey ci kaw booy yooyu noonu la moindre des choses day mooy seen ghetto yi bu doon dund ay naxar ñu def comme ni Tapha Mbeur def c'est la moindre des choses ñu wax booy kan tey ñu ñëw seen porte drapeau lépp lu leen metti dinañ taxaw ba nguur dootul ñëw dóor suñuy suñuy waa suñuy waa banlieue qu'est-ce qu'ils sont devenus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 jëlee fi ay ay ay directeur teg fi ñeneen ci kanamu Sénégal yëpp pour wane que ni ku ànd ak ñun dañ lay dàq teg fi ku ànd ak ñun lépp luñ ci jublu mooy opposition bi dañ am seen fulla nañ booloo ñii nga gis nii c'est des truands waruñu jiite les élections ñoom ñëpp lañu war a dàq te bés buñ ko defee nañ xam que ni li jarul sax ñuy dem élection parce que wan lañ leen ce qui ce qui prépare te loolu yëpp si manque de respect la manque de considération pour wan Sénégalais yi que il faut ngeen comprendre benn affaire dañu leen bëggoon xamloo clairement que ni si dictature lañ nekk su ngeen gisee yenn arrestation yi li ñu leen bëggoon mooy yéen ngeen nangu ko seen biir bopp nga ni ah c'est clair que maintenant ci ci dictature lañ nekk. parce que bu kenn nee nañ dem taal kër diw bu kenn nee nañ dem taal kër diw nañ dem rey diw dañ koy bàyyi. mais bu kenn ne maintien rek dañ koy tëj 6 mois wala lu ko ëpp ci kaso bi donc loolu li ñu ci jublu mooy Sénégal yëpp xam ni on est en pleine dictature nëbbatuñ ko est-ce que nag Sénégalais yi bu ñu xasee ba nangu dictature boobu ça veut dire que dictature bi day jël forme mais tant que ñi ngi koy bañ tant qu'on est prêt wan leen jox leen suñu bakkan wala ñu dem tëdd ci kaso bi ñoom nañu xam que ni loolu li ñu bëgg a teg Sénégalais du mun a Sénégal du peuple bu ñuy noot Sénégal du peuple bu ñuy def esclave Sénégal du peuple boo xam ne da nga leen di piétiner donc maa ngi woo toute cette jeunesse ñu gëm seen bopp toute cette jeunesse ñu jug taxaw ñu nekk ci kaso yi dañu war a exiger ñu génne leen par la force amul lu ñuy négocier amul lu ñuy neexal qui que ce soit parce que defuñu lu ñu leen di téye ci kaso yi di leen refuser ay euh, liberté provisoire systématiquement wala ñu téye le plus de neuf mois ne la génnal. c'est moche pour un pays qui se dit pays de la Teranga c'est moche pour un état qui se dit état de droit donc j'appelle à la mobilisation yéen ñëpp na ngeen ñëw suba ngeen def ko teew. ñu def groupe bu fees dell ba nguur gi xam que ni ce peuple la mi ngi revendiquer la libération des otages politiques et maa ngi leen di rendre un hommage à tous ces euh, en tout cas organisations yi nga xamante si nii abandonné wuñ les jeunes qui son en prison fu ñu mënta nekk ci Sénégal muy Tambacounda muy Louga ñu ngi dem di leen seeti ak di leen nemmeeku nemmeeku seen frère seen ay seen ay famille maa ngi rendre hommage à tous ces gens qui sont restés debout qui sont restés te xam nga ne ñu nekk ci kaso yi seen drapeau moo tax ñu dem ci kaso yi ñu continuer di leen taxaw seen ginnaaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi baal ñëpp àq jaa ngeen